fikrullah moy yoon bi gën yaatu ci yoon yi nga xamne gaay yalla yi ci lañuy jaarale seeni talibé xam ngeen ni sëriñ talibé yi ñew ci mom ay mbolo yu bokku li jangoro lañuy don day am ñu ñew ci ñom ño xamne sampal nañ leen gëtt ci safara ci safara rek lañu warone jëm mom sëriñ bi mooy sempi gént ba gëtt ba ci safara dugal leen ñoo ñu aljana rek moy seen way ak ñoo xamne yalla bindoon leen ci aljana ba nopi waaye ñu ngi ci yoonu réer xaw nag bala ñoo dee daañu gindiku ci waaye waaye yàlla leen di gindi yàlla baaxe leen ñu dajeeg sëriñ bu matub sëriñ mu jaar leen ca yoon wa ñii yàlla jubal na leen bind na waaye barke amuñu ko barkeb adduna wala barkeb alaxira barkeb adduna mooy ñu la topp di la liggéeyal jaar ci sa ndigal te duñ la mooy mukk am war ma ëmb war ma ci sa xol seen xol ëmbal la ca war ma ba teg la place boo xam ne yow sax nekku la fa wala ba ma fa nekkee it ump mënuñu ko misaal wala barkeb àllaaxira mooy yomal xiyaam nga taxaw ne ku féete sama wetu ndeyjoor ramu naa la nga ja nga jëm àjjana ku nekk sama wetu càmmooñ ramu naa la nga jëm àjjana ku nekk sama gannaaw wala nga nekk sama kanam wala ku ma ji texe nga kon taalib jëm ci sëriñ borom bi daraja yu wute lañu ñu rawante lañu ñi nga xam dañ leen a jaaral ci zikrullahi mooy ñi jëm ci yàlla dëgg ñu jëm ci yàlla ñi ci gën a bari néew ma ñëpp dañuy def loo dikkër a dikkaru lan la bu ñu seetee Mawahibul Quddus sëriñ bi fi muy misaale ci katkat wax na ko ci Masaalik waaye ci Mawahibul Quddus la ci gën a soree wax na ba ne la da ngay sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba maanaam sikkar si baat bi ngay wax jaxasoog sa yàpp ak sa deret nga gis kéemaan yu day waar nga gis kéemaani yàlla booba sikkar wax soo xamee ne tàmbali nga sikkar yaa ngi mel ne ku sóob dugub di wal kuur gu dal rek am na pepp yu mu mokkal kuur gu dal rek am na pepp yu mokk ya muy dal day toj naka noonu baat zikkar bi la ilaha illallah wala yaa karimu wala yaa latif wala yaa jalilu wala yaa azizu wala yaa xayu yaa qayumu ak beneen bu mu doon bu la sëriñ bi tànnal wala mu jox la ci ab junj da ngaa amee kurus di xëcc wala da toog rek jublu penk ànd ak njàpp teewlu baat boo wax rek dal na ci sa xol loolu lañ tudde dikrul qalbi sikkar xol bu nu waxagun sikkar si nag ni muy def ni mu lay def yow ak fi mu lay jëlee ak fi ngay jaar ak étape yi mu lay jaarale dañu ciy jëm ndax ci aynul jam i lu ñu tuddee aynul jam i daanu ko misaal fala la sikkar di wommat ba fëgg bunt ba ñu ubbi mu dugal la fa nag bàyyi la ak sa bopp da foo xam ne waxtu woo tàmbalee sikkar ñu génn la ci daairatu xissika dootoo yëg dara boo xoolatee doo gis dara doo xamante da ngaa xippi wala da ngay xool sa nopp yi dootu dégg dara looy dégg yàlla ngay dégg looy gis yàlla ngay gis looy yëg yàlla ngay yëg boo làmbee daj ko loolu nan la nan la demee day nekk loo xam ne yow dong dong dong koy yëg da ngay dem ba foo xam ne bu adduna bépp daje woon di tëgg ay sabar di yooxu di fetal di def la gën a xumb mook kenn bañ a nekk ci àdduna ñoo yem ci yow képp ndax yàlla fu dugg daj ko fees fa dell dangay ngay lap ci biir géeju tawxid ba nga xam ne sa lépp tawxid lay doon foofu mooy mujjug martabay zikkar ci la ñuy delluwaat boo tàmbalee sikkar jawaare yi am na kuy sikkar ci laminam rek ay kuy sikkar ci xolam ak koo xam ne cëram yépp ay sikkar ci ku ci ne am na kii tàmbali nga xam ne zikrul lisaani lay def tàmbali di tudd yàlla di teewlu sikar si muy sikar di ko dégg day tàmbalee lii day tàmbalee ci noppam ndax dégg gi mu koy dégg lii ci lamiñam ndax wax gi mu koy wax lii ci xolam ndax xam gi muy xam maanaa mi wala bu ko xamee bu ko xamul ni muy diisa fi moom ak ni muy xamee ne ci yàlla la nekk noonu mu koy yëgee dana yéex a gëndoo kooku mooy zikrul euh, mubtadiina dañuy sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba suñ nelawee di gënt di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba léeg-léeg duñu nelaw waaye dañuy dox mel na ñu koy sikkar dañuy sikkar di sikkar ba mu yàgg mel ñuy dégg baat bi baatu sikkar bi te du ñoom ñoo koy wax ñu dégg mel ni te tolloo ñoom di sikkar ñu di ko dégg kooku mooy zikkaru mubtadi one yi soog a tàmbali sikkar zikrul muqarrabina xam ngeen ak muqarrabuuna yi mooy ñi gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ak siddiqoona yi sax euh, agguñu ci ñoom siddiqoona yi ci aarifoona yi lañu ñu bokk waaye du ñoom rek ñoom ak muqarraboon yëpp ci aarifoona yi lañu ñu bokk daan waxtaane seen mbir insha allah léegi boo tàmbalee si kat ci ndog yi la ñu jëm boo defee tajarrut maanaam rafle nga ci lépp bàyyi nga lépp léegi nee nga yàlla nga bëgg bëggatoo lenn lu dul yàlla seytaane ngemb fu mu lay njëkk tàmbalee adduna la lay indil teg yaa ngi ñàkk jóguloo liggéey liggéey bi mu ngi ci jublu boo ci duggee ne liggéey rek du dox du dox mukk sa digg yàlla du yàq mukk sikkar daf koo mën a yokk daan wax na mu koy yokkee waaye dafa bëgg boo si jógee nga mën a jaxasoo nit ñi boo jaxasoo nit ñi mu fexe ba sa xol yem ci li ngay def ci liggéey bi rek muy du la gën a jege loo xam ne day dox sa digganteeg la nga doon yóotu te jote ko ne am na foofu boo fa àggee loo mën a def jaxasoog nit ñi même jaxasoog yéefar yi sax du la wàññi dara waaye sori na ñu seet ne kon boo xamee ne indil nga la addina Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu nee na fa inna lid dunya humuman tamnau min al huda wa hiya la tanqatiu الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة ادنا امنا يتي شي نيك يو خامن دي جيخ موك تا داي دوخ ديغنت نيتا جيب تا جيخ موك تا دي داي بيت احمد بن رضي الله تعالى عنه هنا فان للدنيا هم من تمنع من الهدى وهي لا تنقطع الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل مخترمة أدنا أمن يتيش نك وخمن بجيخ مك تلي دوخ جيغل نيتا جيب تلي جيخ مك تدي داي بيت تباري نك بودي نيوي فك بورومي ايت يو بري ام بورومي نال يو بري يوم فتون يني اغالي دي نكو كيت كيت دوخ جيغنتي مك لولا لي nga xamne kon yow mi nga xamne yaa ngi sikkar bu la adduna njëkkee jublu ni ko sëñ bi waxee rek daf lay njëkk a gannaaw nga ñàkk mu dugal ci taxol ne da nga torax dugal ci taxol lépp nga të ko mu wëlbatiku nag indi la wërsëg yu bari nit ñi fonk la di la teg fu nekk loolu lépp boo geesoo jëm te rek ab jabar ngay doon danga nga di def di dindi waaye am jabar lay doon boo amee sëriñ moo lay làq moo lay xettali boo ko amul ñu seet fekkente ne yàlla def na nga ay ko am chance ànd ak malaayika yërmande yi la jege mu dàq leen wala nga taxaw ak alquran ak salaatu ala nabi ba tey yooyu ay gànnaay lañ yoo xam ne dañuy bëmax seytaane waaye nag combat bu rëy rëy rëy nekk foofu bu fekkee nit ko amul sëriñ la